a billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bismillah kon ñu ñëw ci suñ bind tey kon ginnaaw bi waxee faratay jàpp ak ay sunnaam dañu ñëw ci faratay sangu set bu ko fi di fàttalee ni ñu ngi ci téere tasadu subbaan ba léegi ci leeni sukkandiku tasadu subbaan bokk ci téere yi Serigne Touba bind ci wàllu tawxiid wàllu wàllu wàllu xam-xamu moom lañ yore nii moom la ñuy ci la sukkandiku kon faratay sangu set ñeent la sangu set ay farataam ñeent la bi ci njëkk mooy yéene sangu set yéene googu nga def ko booy tàmbali wala boo demee ba àgg ci raxas sa awra euh, loolu farata la ba ngay tàmbale boo ko fàtte woon yii moom li fekk pareegoo boo ko defee dana baax li sangu mi jeexgut rek foo ko ci defee dana baax du noo sopp booy tàmbali nga def ko wala boo àggee ci raxas sa awra waaye li sangu mi pareegul rek foo ko fi defee baax na waaye boo sangu woon ba pare soog xam ne yéene woon kon ba sangu ma baaxul day yàqu faaw nga sanguwaat kon yéene sangu set yéene googu farata la yéene nag du aajoo wax saw làmmiñ yéene da nga koy fas ci sa xol mooy jublu ci sa xol sangu set ken may mu wax ko ci làmmiñam rek mooy koo xam daa bari lu muy iddute lu muy sikk sàkk mel noonu am xelam daa naqari ngir def li gën a wóor kooku danañ ko may mu bi yéene mu tudd ko ci làmmiñam ni fas naa nangam fas na def nangam waaye yéene na def nangam waaw lu dul loolu rek dañuy sib moom yéene nga koy wax ci saw làmmiñ sib nag mooy lu am ñàkk koo def moo def ki kon mooy bu njëkk bi ñaare mooy sësale maanaam booy sangu daa bokk ci farata yi nga sësale li ngay def maanaam cër boo def nga daal di gaaw defaat ba ci topp balaa bi nga defoon di fendi sësale googu farata la ci kaw sartu nga fàttali ko te man ko kon bu nee sësale farata la dañ ciy sart day day nekk ci condition nga fàttali ko te man ko kon boo ko fàtte woon maanaam boo sangu raxas dara fàttali yaa ngi sangu nga dem nekk ci leneen bam yàgg nga soog koo fàttaliku kon loolu moom du ci yàq dara ginnaaw da nga ko fàtte woon bu fekkente ni fàtte woo ko waaye da nga koo munut lu mel ne doon sangoo dem ba ci yàgg robinet bi tëj mbaa sens bi tej ba ndox mi nga yoroon tuuru nga xam ne daal li tax mënoo woon a sësale sangu mi mooy nekkul sa coobare kon loolu tamit du yàq dara ci sangu mi ginnaaw bi saa boo am ndox boo ñëwee mën ngaa continuer. waaye kon bu fekkoon li tax sasali woo ko yaa ko tey sas coobare la lu mel yaa raxas dara benn cër dem di wuyu téléphone wala nga nekk ci leneen ba far cere bi nga mujjoon raxas fendi wala ndox ma la tax mu tuuru yaa ko def yaa ko tey wala yaa gis nga ne ndox mi xam nga ni mënu laa sangu ba noppi nga eh, continuer naa da nga ciy jéem a sangu far avant ngay àggal mu jeex yooyu yëpp moom boobaa sangu ma day yàqu kon sasali bu fekkee ne la tax munta am yow sa coobare la yow yaa ko def yaa sàggan wala yaa ko def sa coobare kon boobaa sanguma du baax bi ko bi ci topp ko ñetteel mooy bomb gi sangu set daa bokk ci farataam mooy nga bomb saw yaram saraxas ko ak sa loxo man fépp foo sotti ndox nga bomb ko ak sa loxo farata la boo doon jël ndox mi di sotti noonu rek muy wàcc sa yaram te bomboo ko sangu ma du baax foo sotti rek muy sa loxo muy sa mm, foo sa bopp muy fi mu mën di doon rek boo ci sottee ndox danga nga ko war a bomb ak sa loxo ba mu set bomb googu noonu farata la duñ sart nag bomb gi lëkkaloog sotti gi ma bu lu neexee nga boole di sotti di bomb foo sotti ci nga bomb ko bu neexee nga sotti ndox ba pare soog a bomb bu neexee nga bomb ba noppi soog a sotti. li solo rek mooy nga bomb ko bomb boppam farata la ndax sangu moom dañuy sart yaram wépp daa war a tooy fépp fu ndox war a àgg rek ndox war na fa àgg bu umul rek sangu mu baaxut moo tax ñu bomb gi farata la kon boo àggoon foo xam ne sa loxo jotewu ko lu sa digg ginnaaw nga xam ne xëy mënoo koo bomb ak sa loxo da ngay wut euh, lu mel wala leneen loo ko mën a bombe wala sax nga woo koo xam ne sañ naa gis sa awra lu mel ni sa jëkkër wala bu dee góor sa soxna mu ñëw bombal la ko wax leen ci borom xam-xam loolu la ñuy wax boo àggee ci fa xam ne sa loxo jotewu fa bu dee amoo sagar wala euh, njàmpe wala loo ko mën a bombe dagan na nga woo ku sañ a gis sa awra muy sa soxna wala bu dee jigéen sa jëkkër mu ñëw bombal la ko kon faratay ñett ñeent yooyu lañ amagut ñeent yooyu wax bu soba ñu àggale benn bi ci des incha allah.